jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru marak yeeg ponk yi ca gën a fës rek euh, bokk euh, ci adjudant major Tamsir Sané euh, jébbal nañu ko tey nag boromam ca sëkk yu yoof moom adjudant boobee gendarmerie nationale bu Sénégal nag delloo ko njukkal gannaaw liggéey yu am solo yoo xamante ni mi ngi ko doon amal ci réew mi ci fàttali mooy adjudant boobu nag ñu faatoon ca brigade bu Koumpentoum gannaaw ba nga xamante ne rek moom doon jàmmarloo ak ay samba boy yoo xamante ne sàcc moo leen taxoon a jukk euh, ca diwaan boobule tey télévision Futur Média def na rek taxaw seetlu tuuti ci liggéey bi nga xamante ne euh, euh, ci dundam ci atum 2012 ci fàttali ba mu nekkee ca gendarmerie bu Bunkiling yu bari yoo xamante ne nag jot na koo teg loxo mu nekk xeex boo xamante ne nag yàgg na koo xeex ak samba boy ca diwaanu Sédhiou boobu sax taxaw seetlu bu ñu def ci poste ya mooy nag poste ya néew na ay waykaar kaaraange yoo xamante ne ña nga fa nekk nag di ko ott bokk na ci poste boobee ah, ca Sédhiou ñu ne benn poids kaaraange képp moo ca nekk te poids kaaraange googu sax booy xool ah, dana koo daal di rek jël ah, kon ca diwaan boobee ñu gis it ne yeneen poste nekk ca Sédhiou ñi ngi jànkonte lay jafe-jafe nga xamante ne mu nga féetee ca Pakaaw nga xamante ne ñu bari ci askan fay faral di ñëw ginnaaw raay nag meex nañu li ko waral mooy tey booy xool jotee ca kon banlieue boobu doon na ay jafe-jafe muy diwaan boobu nag ndax liggéeyub teer bi nga xamante ni euh, kon sumb nanu ko mu mel ni tey askan wa nga xamante ne ñoo fa yow euh, bu ñu bëggee génn mbaa ñu bëgg a dugg rek faw euh, ñu wiiri lu guddee gudd beneen ponk nag ci biir xibaar yi muy opération tabaski ni ñu ko baaxoo di def ak jaaykatu xar yi saa su ne tey nag Fatou Si Gueye la ñu leen indil napaalam moom soxna si nag di yëngu ci njaayum xar opération nag at mu ne dana ko def nag mu cey dugal koppar ay million lépp rek ngir bëgg koo dabu ji mi ngi fas yéene nag def kémtalaay kàttanam ngir mën a jaay bu a bi euh, tàggat yaram dinañ ci àddu gannaaw euh, bëre bi doxoon ci diggante euh, Modou Lo ak Eumeu Sène la seetlu nag mooy léegi si ngir mën a seetaan kon combat yu mag yooyu faaw rek nag nga daal di am ab code code boo xamante ne nag da nga koy jënd loolee bu fekkente ne am na lu muy indi ci lamb ji mu mel ni ñu bari ci askan wi ñi ngi koy ŋàññi mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxeeloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee na jàmm ci xibaaru marax yi ñu doore ko rek ak adjudant major Tamsir Sané jamono yi ñuy wax nag ma ngay noppalu euh, ca sëg yu Yoff foofee la ñu ko denc gannaaw ba ko gendarmerie euh, nationale nag delloo njukkal tey ji néewam ñu ngi ko jëlee euh, ca caserne Samba Diéré Diallo waaye politique nag ña nga fa woon ay jege ñaaleem ak ñi nga xamante ni ñoom la bokkaloon liggéey bi dañ ci ànd ak Maguette Soirée Diallo. mu nekk ab cérémonie bu bëri émotion ak nakar.

éternelle. ministre des forces armées Sidiki Kaba mu ngi dalal xel yi jàpp na ni mbir mi lépp dina leer. Tamsir Sané sous-officier la woon moo doon commandant de brigade de Koumpentoum ay seede yu rafet la ñu mën a wax ci moom ndax lu toll fanweer ak ñaari at mu ngi nekkoon ci service armée sénégalaise. mën nañu wax ne valeurs yi nga xam ne moo doon les valeurs militaires mooy discipline mooy courage mooy professionnalisme wone na ko ñi nga xam ne ñoo ko xëy que dinañ leen topp te dinañ leen arrêté dinañ leen jugé conformément à la loi. Roger Youssouf Sané moom rakk la ci Tamsir Sané mi ngi témoigner. Euh, remercie encore nation sénégalaise si nit ñi nu ñu compatiré si malheur bi en tout cas gis naa ni euh, Tamsir tey li mu waroon am am na ko fii rek boo leen ko xoolee si gendarmerie ni ñu soutenir état bi moyens yu mu mettre à place sincèrement rien à dire merci encore à la population sénégalaise. Tamsir Sané mu ngi gën ci àdduna juróom-ñetti fan weerub avril atum 1964 ci Saint-Louis adjudant major Tamsir Sané dugg armée ci atum 87 avant muy intégré gendarmerie nationale ci juillet ñu yóbbu ko grade adjudant major ci janvier bi affecté ko bureau de post bu Koupentoun ci mois de février bi foofu noonu fa lañ ko faatee. ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet bi ci almeeri Yoff fa lañ ko denc. yemook mu amoon juróom fukki at ak juróom moom la amoon moom adjudant major Tamsir sànni mu nekk nag liggéey bu am solo boo xamante ne jot na ko def fii ci Sénégal ndax jot naa teg loxo ay Samba Boy ñu fàttali ci atum 2012 ak opération yi nga xamante ne mi ngi ko doon def xeex wàllu sinébar la woon ci diwaan boobu nga xamante ne fa la nekkoon Aminata Mbaare Sow moo dellusiwaat rek yër jaar jaaram. importante saisie drogue bile feu commandant Tafsir Sané moo ko amaloon loole ci atum 2012 la woon boobee moo nekkoon commandant ci brigade gendarmerie bu Bunkili. booru 2 heures du matin dañ jot am benn information ci kaw information bi ñu ne ñu daal am na ñaar nit ñu nekk ci benn moto ñu ngi yor ay saako yàmbaa di jëm côté Kolda bi. ci kaw loolu ñu ay booru deux ci si lañ dem maak samay élément ak renfort gendarme auxiliaire yi dem toog. moom commandant ba woon di nettali opération bi ni mu demee ba mu teg loxo trafiquant drogue yooyu le nekkoon benn sénégalais ak benn doomu bu Guinée Bissau. si côté village Kagnalou bu ñu fa toogee ba ay cinq si lañ seen moto bi di ñëw mais bu ñu egsee am ko ci fay lamp yi bu ñu fay lamp kenn ki ñëw di xool yoon bi ndax amul ab gendarme la ab douanier ba fa nekk. ci kaw loolu si lañ ko jàpp dañ ko jàppee génnee ko foofu ñu ñu wax xale yi ñu laal benn dispositif wax leen pour ñu wéri ñu wiiri bi ñu wiiree seen njam fekk keneen ki nga xam ne moo yoroon moto bi ak saako yi tëdd ñu gisee muy jéem a daw si la ko xale yi dàqee jàpp ko. feu commandant Tafsir Sané opération yi ni mel def na ko lu bëri foofee ca Sédhiou balaa ñu ko jëlee foofu yóbbu ko ca Tambacounda ca bureau post bu Koumpentoum ci atum 2019 ci weeru février bi le passé ca foofule sax fi mu doon liggéeyee foofee lañ ko faat mu mel ni foofee ca Tambacounda commandant Tafsir Sané juróom weer dong la fa jot a liggéey mi ngi noonu moom ngeen doon seen noonu ci uh, nataal yi ñu dellu di mastawu njaboot gi tey ñaan uh, yàlla woyofal suuf ci kawam te xaare ko uh, àjjana ñu des nag ci ñàkk kaaraange gi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku ci poste yi rawatina ak ca diwaanu Sédhiou ñu ne nag poste ba nga xamante ne moo nekk ca Pakao post la boo xamante ne bari na lool li fa nag immigré di ñëw ndax ñu bari ca doomi Sédhiou ñu nga ca bitim réew te ci post boobu nag fa la ñuy yónnee xaalis rek ngir seen i mbokk ak seen i waaye tey booy xool ci wàllu kaaraange dafa mel ni euh, néew na lool ñu ottu poste nekk ca diwaanu euh, Sédhiou euh, dañ ci ànd ak Bakary Konté fii ñu ngi ci post bu Sédhiou agent yi ñu fekk ci bâtiment bu màgget bi léegi ñu jóge fa pour rejoindre locaux yi bees yoo xamante ne post moom la tabax agent de sécurité bu fi nekk post niveau local moo ko recruté responsable bu fi nekk nag moom bëggul wax ci suñu micro wante benn commerçant boo xamante ne dëkkoon post la Alimu dara di ne amuñu benn sécurité bu leen mën a protéger parce que amuñu fetal jaasi jaasi bu baax sax amuñu ko wala certains gaañe naa ngi gis ñu yore seen seen paaka bu ñu yore seen jaasi boobu loolu encore ñoom ñoo koy jënd donc tey wayu bu ñëwee souvent wayu bu ñëwee il est armé si ñaari côté yëpp mystiquement armement donc bu ñëwee boo reposé mun na la rey euh, sa bakkan des foofu lu mu war a def mu def ko mu dem yoonam. bureau poste yi nekk fii ci région bu Sédhiou dañ leen di fréquenter loolu population yi nag di ñaawlu manque de sécurité bi. souvent su ma gisee femme yi te damay gis foofu femme yi je boo xam ne dana nekk pour di moo tax ma ne man j'ai pas musuma fa gis ASP bu fay monté moom maanaam bu nekk foofu pour la sécurité de la poste je n'ai jamais vu ça. nañu def seen kenn lay kattan te li am ni côté Koumpentoum ñaanuñu tam mu law tam ci ñeneen régions yi. surtout Sédhiou daf ñu ci benn zone d' insécurité c' est une zone qui en profondeur boo xoolee sax yooyu def ça mérite aussi au mois mu am sécurité au moins pour que population bu mën a nekk ci jàmm. te Sédhiou zone dafa bari ay immigration gars yu bari bu ñuy yónni ay mandat lu gën a bari poste la koy envoyé donc immigré yi parents bu ñu yónnee xaalis parents yu bari weer bu dee fii da nga gis post bi fees del ay nit donc sécurité encore bu amul. loolu tamit mun a indi tolof tolof diggante liggéeykat yu nekk ci biir poste bi ak euh, population bi ñu ñoo récupérer seen xaalis. Sédhiou nekk région boo xamante ne dafa am frontière ak gox yu bëri diwaanu Tanaf ak Goudomp structure financière yi fa nekk souvent dañuy am ay jafe-jafe ndaxte dañ leen di cambrioler. jafe-jafe la ñu nemmeeku tamit euh, ca Ross Béthio diggante euh, sàmm sa la ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy baykat rawat naag ba nga xamante ne rek am naab sàmm boo xamante ne nee ñu euh, benn baykat nag moo ko faat foofee tey jàmm kese la ñu namm nag ca waalo moo waral Serigne Alpha Sow di sàkku rek ci askan wa rawati diggante sàmm sa ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy baykat yi mu gën a ratax bu mënee ne Ousseynou Diop Habib Seck ci leeral ci dëkk bii di Oréséno la ñu amale bi leen ndaje béykat ak sàmmkat yi nga xamante ni dañu doon tëkkonte dina ba ñu fàttee benn sàmmkat ci gox bi ndaje bi nag Thierno Alpha Sow moo ko daal di woote ngir jàmm mën a am ci ñaari làcc yi. fa gis ne problème yooyu daf fiy bëri ba léeg-léeg muy jur ay xeex di jur ay nit yuy dee. mu ne li gën a rafet mooy nañu woote waxtaan ndax ñun ñëpp benn lañu. agriculture yi ak éleveurs yi ñu waxtaan euh, ñu génn ci benn maanaam tënk ci loo xamante ni buñ ci tegoo incha allah mun nañu wax problème bi dina réglé wu léegi mais ci at yi ñu jëm aussi problème bi dina dina saafaraw bu baax a baax. ñoom baykat yi ak sàmmkat yi sax nee ñu léegi jàmm war na mën a am ndaxte jafe-jafe bile andi woon na tension ci gox bi. diggante béykat ak sàmmkat lépp lu nga xam ne war taxal seen diggante loolu baax la. moo tax sëriñ bi def na lu baax lu nga xam ne lii euh, yaakaar naa dana am jeexital ci population bi. wax dëgg yàlla lii yëpp bu fekkee ni woote woote na ci nit ñi wuyu nañu ko ci ci diggante sàmmkat ak béykat loolu buñ ko déggee ni mu ko waxee ñu waxtaanee ko ci dégg ñu jóg foofu ñu jëfee dégg bi yaakaar naa ni jamono noor. ndaje bii maire député ak ñeneen ñi nga xamante ni am nañ ndomb tànkal ci gox bi daan nañ koy teewee nee nañu nag daañu bay seen waar ci mbir mi ngir jàmm mën a am. Euh, tey baykat nga suba sàmmkat nga ku nekk jàpp ne tey da ngay sàmm suba da ngay bay ku nekki jàpp ne ay dëkkandoor lañu gannaaw ay dëkkandoor lañ te lu ci am lu mu metti metti metti ci mujjantal ga waxtaan moo koy saafara ñu jiital waxtaan bi fexe ba it ku nekk aussi di moytu di tooñ sa morom. jafe-jafe yi nga xamante ni moo doon am ci diggante baykat yeeg sàmmkat yi ci diwaanu Ross Béthio nag léegi war na mën a dakk ci ndaje bile kenn ku ne la la naqari wax nga ko ñoom nag nee nañu tëkkonte yi daan am seen diggante teg nañ ko ci suuf. Ousseynou Diop cant ak ngërëm ah, ñeel na la waa askanu ah, ginnaaw raay sud nag ah, ñi ngay woteek wàllu ci jafe-jafe bi ñuy dund bokk na rek ci nee nañ commune ba am na ca wet goo xamante ne nag dañu koo tëj ndax liggéeyub train express régional ba ñi nga xamante ne ñoo ñoo yor liggéey ba kon ñoo tëj lenn ca commune ba ba mu waral nag ñu bari ca ñoom tey bu ñu bëggee dugg mbaa ñu bëgg génn ci seenu dëkkuwaay faaw rek ñu wiiri lu sore sori ba tax nañu ngi sàkku daal ci kilifa yi ñu dimbali leen ci ay passerelle dañ ci ànd ak Salif soowa dafay dëpp moom dawalkatu moto bi bëri na ci moroom ñu yore oto saret wala ay moyens de déplacement ñëw ba fii wut ruq bu ñu mën a jàll wala delluwaat dem ca route nationale ba ginnaaw raay yi muy nord ak sud daanaka dañ leen dagg ci wàll wi nga xamante ni moo féeteeg raay yi loolu ñaar fukki fan ci weeru juillet ba léegi la ñu dëkkee ci bërëb bi nee ñu mbir mi jafe-jafe bu mu leen jural foo ko takk weesu na ko. depuis bañ tëjee raay bi dañoo am problème boo taxawee fii nii di nga seen benn kër boo xam mi ngi nekk ci ginnaaw bi mais pour nga dem fa rek il faut nga def benn tour bu rëy rëy rëy rëy pour dem fa. donc ñun ñi nga xam ni fii ginnaaw raay amul marché suñu yaay yi ci marché maam jaara lañ dem nduggee dix minutes quinze minutes dañuy dem nduggi ñëw togg seen añ mais léegi nii pour ñu dem marché maam jaara mën na leen jëlal deux heures de temps parce que benn tour la ñuy def dem ba buntu Pikine bu ñu jógee buntu Pikine jël foofu oto wala bu ñu amul paas oto ñu jël ñu dox foofu noonu pour mën a dem te bu ñuy ñibbisiwaat dañuy defaat le grand tour. ginnaaw raay sud mënuñ fa duggee lu dul ci route nationale numéro un bi ñaari buntu la am léegi mooy tali bu aw mairie ba ak tali bi bi nga xamante ni mooy rond point Stips. jamono yee passé avant gars yi di commencé chantier bi gars yi ne nan leen defaral nan que ñu fi dëkk ay doomu aadama la duñu ay bàyyi ma parce que mënu ma concevoir ni ginnaaw raay ak nu mu toll ak population bi fi mën a dajee yëpp ñu jël leen tëj leen mel ni ku leen tëj ci kaso mel ni ku bokkul nu bokkul si population bi. affaire yi jarul guddal jarul làkk-làkkal mbir mi mooy liggéey bi ñu gaawal ko maanaam defaral leen saxit li nga xamante ni mooy ay passerelle wala ay tunnel. yi ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi ñu accéléré ko parce que aussi tamit euh, li ñu koy waxee rek min naan euh, sol yére ak sumeeku yére noo def yaramu neen xaj ko quoi être ci moment boobu lañ toll bi gars yi mën a aw ba dugg biir ginnaaw raay mais passerelle yi ak tunnel yi ba léegi ñu ngi ci chantier te wër na dëkk bi côté booba tëj nañu ko leneen li mooy entreprise bi nga xamante ni moo def lu nu mel di defar train bi waxut ba léegi mbir bi kañ lañ koy tijji fi la nag ñu xaarandi loolu di am ginnaaw raay mu ngi wéy di fattu li ñu duppee liberté d'expression maanaam am sañ-sañu wax sa xalaat ñu ne Sénégal da caa des gannaaw maître Amadou Ali Kane moo ni gisee moom mi nga xamante ne dafay xeex ngir àq ak fu doomu adama mu ne nag am na ay charte yoo xamante ne faw euh, ñu euh, xoolaat ko ndax boo xoolee fii ci Sénégal ci wàllug euh, kaaraange war na nañu caa xeex waaye tamit li nga xamante ne nii moom mooy vie privée doomu aadama bi loolu it war nañ ko xoolaat bu baax a baax ndax léeg-léeg ñu jalgati ko ba ci wàllug wér-gu-yaram a noppi te ñu gis ni léeg-léeg ñu ngi koy yëkkati mu jug ca kaw may Maïmouna Ndiaye Thierno Laurent Mendy ñoo ko seeti woon. droit à la vie droit à l'intégrité physique et droit à la sûreté. bu weesoo yooyu les droit yi mu lim liberté d'expression jibal ay kàddu wax li la neex am na foo xam ni doomu aadama bi tënku na fa. nit ki mante wax lu ko neex war nga sóoraale aussi. Euh, àq ak yelleefu ñeneen ñi maanaam sàmm seen sutura bañ ko xaaw yi ak yooyu donc nekk liberté boo xamante ne am na solo mais aussi amul dayo bi fu mu yemul déedéet dañ koy limité. fii ci Sénégal li ñu seetlu mooy lu bari dafa des. d'abord loi moo ko war a prévoir ça c'est un ba pare limite yi dafa war a poursuivre un but légitime du ñu limité rek parce dañu bëgg. weñ loxo ñuy wax dañuy war a limiter aussi pour aar leneen. limitation bi li tax mu jóg dafa nekk loo xamante ne euh, lu yanu maanaa maanaam aar par exemple euh, sutura nit ñi aar seen euh, honneur aar secret d'état aar secret médical maanaam daal loo xamante ne daal dafa nekk lu am njëriñ. mën nañu aar nit ñi te àgguñu ci di nëbb jant nit ki. bu ñu sukkandikoo ci kii nga xam ni mooy layal ak ak yelleefu doomu aadama yi moom nee na réewu senegal jot na ñu na siy pexe gën a jëm ca kanam ndax kat am na lu bari loo xam ni war nañ koo def ngir yenn droit yi askan wi moomal ko boppam. a Ndiaye am na yu bari yu ñu war a def waaye it am na lu ñu war a soppi lu ci mel ni euh, panneau publicitaire yi léeg nag ñu gis ni euh, bari na lool ci dëkk bi ñu ne sax anam yi ñu koy sampee dëppoowul ak yoon euh, jëruñ ji nga xamante ne nag moom la ñu dénk gox yu fasantikoo yi moom moo daal di xamle lu ni mel ba tax na mu ne kon waxtaan jaadu na ci diggante ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy maire yi ndax maire yi ñoom ñu ci ëpp nag dañuy am rek ci wàllug kon panneau yooyu ndax publicité yi cay tukkee dana génnee koppar Euh, kon faaw ñu daal di laat lu baree bari tey jii la ko xamle ci ab CRD boo xamante ni ñi ngi ko amaloon euh, jagleel ko acte 3 de la décentralisation wàllu gox-goxaan la euh, ñu teewlu jëriñ jëwriñ ji di Omar ci micro Alassane Ba. li tax ñuy wax évaluation mooy ñàkkul am na loo xam ni waroon na gën a dox te doxul yooyu itam ñëwaat nañ ci lu baree bare lu mel ni fiscalité département yi. ah yu mel ni yeneen euh, euh, taxe yoo xam ni laat nañ nee nañu nguur gi na ko yokk ci TVA bi 5 eh, pour cent la mais mën na gën a yokku xëy ñoom wax euh, li wax nañu loolu loolu lépp nag dañ koy def ci biir corbeille bi maanaam ci li nga xam ni moom la ñu taataan ci fukki région yi ak ñeent ñëw nañ tamit ci spécificité Dakar xam nga dakaar dafa am problème mu transport Dakar am problème mu ordure gestion des ordures bu ma nee Dakar nag région bi laay wax dañu am problème pollution visuelle pollution visuelle boobu mooy lan maanaam boo boo xoolee suñu euh, avenue yi suñu route yi euh, suñu autoroute yi sax daanaka dañ cee def ay tableau ba finalement doo sax mën a gis daanaka sa kanam loolu nag rafetul day ñaawal dëkk bi day ñaawal cadre de vie bi président Macky Sall demandé na gouvernement bi mu xool ak acteur yi maanaam maire yi ndax ñoom ñooy jël taxe yooyu nuñ koy defaree ba mu baax ba nga xam ni naka yeneen dëkk yu développé yi di defee mu am maanaam panneau yi dafa am war a am hauteur réglementaire dafa am distance réglementaire ñu bàyyi xel tamit ci contenu yi ñu ciy bind. loolu aussi lu am solo la ci biir liggéey bi nga xam ni bëgg nañ ko séq ak maire yi nga xam ni ñoo nekk ci ci Sénégal yëpp mais particulièrement dans la région de Dakar pour que loolu ñu mën ci trouver solution ba saafara ko ñu àddu ci leneen muy nag ceeb bi ceeb bi ñu seetlu ko nag fii ci Afrique bari na lool ñu koy jëfandikoo ba tax na nag war nañoo def euh, kéemtalaay kàttan euh, ba gën koo yombal gën a nag fexe ba mbay mi euh, gën a ñoŋ loole nag ci ab lël la ñu ko waxtaanee lël bi nag jëriñ yi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllug mbay mi moo ci lëkkaloo ak banque islamique de développement ngir daal di koy amal Fally Badji moom ab opérateur économique la ñu teewlu ko. xam nga dëkk bu bëggee développé wu li muy dundee daf ko war a daf ko war a defar moom ci boppam parce que mënoo ne yow da nga bëgg développé sa dëkk ba pare lépp loo xam ne moom la sa majorité dëkk di lekk nga koy importer loolu dafa nekk en contradiction avec li ñuy wax politique de développement bi nga xamee ne yow ñi nga nekkal ñi nga xam ne ñoom ñoo la yaakaar jox nga leen dañu lekk ba mu doy dinañu produire pour mën a jaay pour am yeneen activités yoo xam ne mën nañ ko def. surtout dafa war a jóge ci suñuy gouvernement parce que initiative bi fii la war a jóge ba pare ñeneen ñëw jàpp ci parce que mënuñu loo dimb kenn buy bi ñuy wax dimb comme ni ñuy wax ci olof ndimbal na ci fekk na ca fekk loxol borom. wax nañ ko sànq ci ndox teelu xibaar yi opération tabaski nag bari na ci sóobu ngir rek euh, wut ci koppar bokk na ci soxna si ñuy woowee euh, faatu si Guèye moom nag at mu ne euh, mu def opération tabaski lu ëpp million nag dina ko ci dugal mu fas yéene def kéemtalaay kàttanam ngir rek defante kook ñi nga xamante ne nii jaay xar moo leen tax a jug Cheikh Diop Amadou Ba. ay pepp yu mu war a dugal ci gémmiñu yile mala ñi la dem ba doon ab fameem boo ko gisee xar yi ñu ngi daw euh, di leen uti mu dee leen di jox dund Fatou si gay daal di sóobu ci li nga xam ne moom moo di opération tabaski kile di dund ab mbëggeel bu wóor ak li nga xam ne moom moo di xar yi. amul la rek ah bëgg-bëgg dama ko yàgg bëgg yàgg na booba lu ndaw laa. 13 ans laa am sama papa moo ko daan def ma gis ka si moom bëgg ka jël ka. ay xar ak i raas yu wuute kile di xamle ni daal dinay jug ca njël. moom mi le di àddu ba tey ne rek bu tabaski bi desee benn at lay waajal lu ni mel. bu ñu tabaskee ba sa ëllëg sa damay dem jëndi samay xaar dugal mu jëm déwén koo pari dund beex sanga beex jox mu lekk metti na torop ndax xam nga man kese jigéen mënuma ka sama borom kër moo may jàppale dina ëpp un million waaw mënuma kaa à peu li nga def see xaar si lekka boo ko bu fekkee moom ngay xool pour bénéfice doo am bénéfice. ñu nekk fii ci Yoff jege lool li nga xam ne moom moo di point bi Fatou Sy Gueye doon benn jigéen bi nga xam ne moom mooy dund ci biir góor yi nga xam ne dañuy def opération tabaski jàmbaar ji li di xamle ni du bàyyi benn yoon naka noonu itam muy sàkku ci jigéen ñi ñuy def lu ni mel. ñetti palaas yi benn lañ dañuy ootante añax lépp li ñuy lekk dañuy ootante wax dëgg yàlla bu desee 10 jours mbaar ma lay laay fanaan di ko jaayantee ñoom rek. bañ a def lu bon bañ a ñaan kase moo ma si dugal. jamono ji nga xam ne yenn ci jigéen yi ñu ngi xaar seen ay borom kër daal di leen di defaral rawatina bésub feet lu ci mel ni ay bubu ak itam cheveux naturel ba ci yeneen yu ni xeetoo Fatou Sy Gaye na mu gañe li nga xam ne moom moo di viom ci bile activité moom mi sax di sàkku ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di sénégalaises yi ñu gën a jàjju ngir rek mën a gañe seen vie. keroog euh, ñu wax ci combat bi doxoon ci diggante Eumeu Sène ak euh, Modou Lo Eumeu Sène nag ñu gis ni rek euh, kawoo la am ci kanamu Modou Lo ba tax na nag ab rek samp na ci kii di nag Modou Lo waaye tamit ki nga xamante ni moom mooy Eumeu Sène kon ëllëgam lan la bu ñu sukkandikoo ci professeur Abdourahmane Dia Abdourahmane Dia nag nekk spécialiste médecin la ci CNG ak Yatma Lo mi nga xamante ne nag moom gën nañ ko xam ci arts martiaux ñoom nag nu yàbbi rek euh, ci euh, mbir mi waaye nag li ñu wax ci bëre dóor mooy dóor la wax kon dóor euh, mënta ñàkk bu ñu demee ba tudd bëre dóor ay sëtu pay bi nga xamante ne feeñ nañu ko dafa ko def mu nekk kaw kon nag bëre moom xam nañu ne dóor la àndal waaye dóor bi nag ndax du indi ay gàllankoor bu doon am box ñu def la loolu di nga toog au moins trois quatre six mois yoo xam ne da nekk en observation ba pare ñu interdire la boxe pendant un bon bout de temps xaw ma nag fii règlement lutte bi ndax dinañ ko def wala duñ ko def mais il faut ñu protéger lutteurs yi parce que coups yi ñuy dégager Bruce Lee il faisait un mètre cinquante six mètre soixante il pesait soixante deux kilos mais à chaque fois qu'il déployait bu la dóoree sukki mille cinq cent kilos lay déployer d'énergie de force bu doon en boxe ñu def la loolu di nga toog au moins trois quatre six mois yoo xam ne da nekk en observation ba pare ñu interdire la boxe pendant un bon bout de temps. ñett ba ñeent weer te du am benn activité physique waaye nag kii di professeur Dia mi ngi recadré di fàttali. dana am repos mais pour ñu mun a wax ñaata fan ñaata semaine la wala ñaata weer la. il faut mu def examen complet examen maanaam neurologique ñu def ay rajo ay yeneen examen pour ñu mën a xam ñaata fan wala ñaata weer wala ñaata semaine la war a noppalu. bu ñuy wax nag lutte avec frappe ndax mën nañu xalaat ne dóor du ci am. bëre dóor la ñu wax maanaam da ngay dóor pour bunt pour mën a jàpp daan sa adversaire. lu ñu mën a def mooy ñu jëfandikoo gants ay gants gants yi xam ne gants yi dañ la mën a def mbër bi mën a jàpp maanaam mën a jàpp bëre maanaam du ko gêner trop am na gants yooyu am na gants spécialisés. ñu xam nag ne sport gu ne dina am ku daanu ak ku daan waaye nag. bu mbir mi di am rekk nañu maytu kur feñ yi nga xamante ne ah day xamalate Eumeu Sène moomee sax ñi ngi doon wax ni gannaaw ba mu jotee nag kon ah, kurpañ boobee dañu ko yóbbu kër docteur weddi na ba set wecc ay kàddu la yëkkati ak suñu naataango yu rajo Futur Média nee na nag lu ni mel amul te nag mi ngi ci jàmm mi ngi ci salaam loolee ñuy tudd nag ci ba kon dara ah, amu ca ñu des ba tey ci ah, bëre boobee démb gis nañu ni rek defati nañ la ñu daan def bu combat bu mag amee boo fayul nag jënd kot kon mu mel ni doo seetaan loole nag ñu ne bu dee lamb da cay yokkoo ñu bari ci askan wi ñu ngi koy ŋàññi màggat gay ya ci jamono yi ñu seetlu ni promoteur yi dugal nañ ci làmb ji lu ñuy woowee PPV maanaam fay ngir mën a seetaan mu doon lu yenn amateur yi di ñaaw lu loolu man duma ko jënd duma ko jëndloo kenn ku man direct seen ma ku mu direct ma dagg billet mbaa bu làmb jeexee ma dem journal seetaan du ma jënd connexion benn yoon juróomi téeméer mënuma ko ci kenn damay dagg billet man ay 10 000 7 000 dama koy dagg billet. kon man damaa jën juróomi téeméer mais bu indee sa règlement bu bees man ma lànk am naa sañ-sañam man ma bañ du ko def. li gën a neex ci làmb mooy nga toog sa saal jàkkaarloo sa écran du seetaan sa làmb mais ni ma ko gisee nii franchement franchement ci sama xalaat man bu gàtt ñi ngi ay làmb ci balaa ngaa seetaan nga fay ah sant ma sama bopp daal ñu xoolaal leneen loo xam ne mooy gën a mooy gën a naaj saal. ñu bari si ñoom di xalab connexion internet bi ndax bon gi mu bon. dañoo jëndal fii connexion. amul lu jàll dara jàllul dan sunu correction yi benn jàllul te remboursé wu ñunu danoo perte danoo perte suñu xaalis kenn di ko jënd ku ko fi defatee doo jaral waxal leen ko ma wax loolu. mu am ñeneen ñu kay rafetlu jàpp ni lu mën dimbali promoteur yi la ak fi làmb ji toll nii. c'est normal gis sa làmb sol na ci bay bëgg a dee ku mel ne man jóg rek mu yomb ba dee nga dem di seetaan ci télé ah wax dëgg yàlla dootoo mën a dem boo nee mbër maa ko fay ay centaine de millions. ñu mel na man nag toog naan voilà ci écran bi laa koy seetaan mais yow mi tëgg du la arrangé. boo xoolee bu baax loolu ci benn côté lu baax la parce que sponsor yi ñu ngi nangootuñu ñëw ci làmb ji bu sponsor doon ñëw ci làmb ji sax loolu mën naa ñàkk mais comme que sponsor yi ñëwatuñu ci làmb ji loolu bon mekk na loo xam ne dina dina dimbali mbër yi dimbali promoteur bi. lii di PPV mi ngi wéy di merloo yenn seetaankatu làmb yi promoteur yi ñoom jàpp ni duñ ci dara lépp ci connexion internet bi la. Maguette Gueye Younous Diatta ñu leen di jaajëfal bu baax a baax mbokk yi fii la ñuy yem yéen ci xibaaru Marak yi sant leen gërëm leen yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti ci kanam tuuti 20h xibaar yi ci nasaraan daa ngeen ci ànd ak Chérif Diop.